ta doom dafay ndénkaaneel yàlla ci waajur nekk taar bu àdduna ci ma ne ko alxuraan waxi ne almaalu walbanuun ziinatul xayaati dunia alal ak njaboot taaru dunduk àllaaxira la mu nekk xéewal goo xam ne yow na sant yàlla lool wa jaaltu lahu maalan mamduuda wa baniina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida kon xéewal la gannaaw nekk xéewal yi nag gu yeyoo cant dafa nekk masuliya maanaam warugar wuñ la gàll wu diis nga war sonn ci ñoom rawatin ci lépp lu leen di yéwénal ci seen dund ak seen diine suñu bam gàll ko waajur ak képp koo xam ne danga njaboot dafa nekk ci sa ron nga yëlfi leen waru gar woo tege ci sa kaw suñu bam ne yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara waquduha naasu wal xijaara alayha malaikatun ghilaasun shidaadun laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun yéen ñi yàlla Eh, nangeen ngeen fegal seen bopp ak seenu njaboot sawara sawara ba nga xam ne ëllëg matt mañ koy xamee mooy nit ak doj te yi fa nekk yoo am kàttan yu am doole yoo xam ne duñ mooy yàlla mukk ca lam digal lam leen digal waaye ndigalam rek la ñuy jëfe te malaaka yu ñuy xaroo ngir mbugal rek walees bi la temps la bi itam findeel ko ci xadis sallallahu alayhi wa sallam ne allimu anfusakum wa ahlikumul xayr na ngeen xamal seen bopp seen njaboot aw yiw lu baax defarug bakkan defarug xol waaye jëf-jëf ju baax ak tegu ci yoon jël ni ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al imaamu raa'in wa masulun an raiyatih wa rajulu raain fi ahlihi wa masulun an raiyatih wal maratu raaiatun fi bayti zawjiha wa masulun an raiyatiha wal xaadimu raain fi maali sayyidihi wa masulun an raiyatih fa kullukum raain wa masulun an raiyatih neen dégg naa ci yonent bi sallallahu wax ne nit ku nekk ab sàmm la te càmmam googi dañ ko ko laaj ëllëg nu mu ko sàmmee ndax rafetal na ko wala sànk na ko imaam ju nekk ab sàmm la ca ñamu jiite dañ ko laaj càmm googee benn waay bu nekk nit ku nekk ab sàmm la ci ak njabootam te ëllëg dañ ko laaj nu mu sàmmee njaboot ga jigéen ju nekk ab sàmm la ci biir kër boroom këram te dañ ko laaj nu mu nu ko sàmmee liggéeykat bu nekk ab sàmm la ci alal yi njaayati géem te dañu ko laaj nu mu ko sàmmee eh, daal di wax ne ku ku mu doon ci yéen rek sàmm la te alal sa ko laaj la mu doon sàmm nu mu ko sàmmee yéen saa sam firndeel ko ci beneen xadis sallallahu alayhi wa sallam ne inna allaha saailun kul kulla raain am mastaraa a xafida am dayaa xataa yusala rajulu an ahlihi an ahli baytihi yàlla dana laaj sàmm bu nekk lam ko doon sàmmloo nu mu ko sàmmee ndax jof na ndax rafetal na ndax sàmm na ko wala sànk na ko ba dañ laaj nit sax ci ci ci waa këram ay waa këram nu nekk woon ak ñoom lépp lu ñuy laaj la ëllëg nga xam ne kon warugar la wu dis wuñ la gàll muy sàmm njaboot gi ak yar leen yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne wenn waajur mayul doomam may gu gën a rëy gu ëpp gu gën a baax def ci moom jikko ju rafet maa naxala waalidun waladan afdala min adabin xasan wenn waajur mayul doomam lu gën a màgg gën rafet eh, gën ëpp solo ci mu yar ko yar bu rafet mooy may gi gën a rëy gën rafet gën a mat eh, kon loo ko mën defal jàngal ko ba mu xam nga yar ko ba ay defar ba ay jikkoom defaru mooy la ëpp solo ca la ngay defal sa doom te lu ci doon ëllëg eh, sa njariñ lay doon njariñal boppam lay doon njariñal am réewam lay doon njariñal diinam lay doon eh, moo xam nag njaboot ga moo xam góor lañu moo xam jigéen lañu dañ laa gàll warugar woowu tax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne képp ko yàlla nattoo njaboot gu jigéen aw waxin la njaboot du natt waaye waxin la koo ci yàlla jox dara ci njaboot gu jigéen mu rafetal jëme ci ñoom ëllëg ñooy doon kiiraayam diggam ak sawara man ibtuliya bi haatihi l banaati bi cheyin fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an nar del waxaat ci beneen xadis ne képp ko yàlla jox ñetti doom yu jigéen mu rafetal seenu bi yar ba joxe leen ñu ñu sëy mu rafetal jëme ci ñoom ëllëg am na aljanna man aala salaasa banaatin fa addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilayhinna falahul janna danga ci dégg ne kon yooyu yooyu nusuus yëpp ak yu du ñoom tamit yu baree baree baree bari ci alxuraan ak ci hadis dafay tegtale ngëneelal yar njaboot mu nekk benn bànqaas ci yar nit nga xam ne lislaam daf ci daf ci dox bu baax ci waajal ko ci former ko ngir mu nekk ëllëg uddu boo xam ne dafay am njariñ doon ci doon ku nite ku baax ci dund waaye nekk ko ay ku amal njariñ diineem amal njariñ am réewam amal njariñ boppam amal njariñ ay bokkam loolu lépp nu bokk ci li taxoon it suñu boom yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko wax ne wallati ba'atha fi lummiyyiina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim Eh, moom suñu boom moo yabal mooy yónni ci ummi yóone yi nga xam ne mënuñoo jàng mënuñoo bind mu yéen kenn ci ñoom seen biir yonente boo xam ne dafay jàng ci ñoom aayay yàlla yi te di leen tarbiya wa yu zakkihim mooy wa mu di leen yar di sellal seeni xol di sellal seeni bakkan te yar mooy li gën a màgg gën a kawe li ëpp ci lu ñu yare nit gën caa ma gën caa kawe mooy saxal ubudiyya ci moom taqiqul ubudillahi rabbil alamin te mooy def ko mu nekk bu yàlla bu ko ma sëkk ab jaam delloo yàlla la mu moom di ko jaamu bañ koo booleeg dara eh, booleeg sellal ak jaamu te la la mooy la muy def lépp na jëm yàlla kepp tax ak mucc ci lépp luy bokkale li ko niru ibnu kathir ibnu kathir ni mu firee wa yuzakkihim jooju dañu yutahiruhum min rasail axlaaq wa daan si nufus wa afal wa afal jahiliya nee na yuzakkihim mooy daleen di laabal ci mboolem xeete bon boni jikko yi ak tilimi bakkan yi ak jëfiini caddo yi ba nga xam ne xolam dafay set wicc te xol nu mel na la jëf yay mel bu xol rafetee jëf yi rafet eh, xol waxtu nekk jëf yi dañ koy topp ca mel moo tax nag eh, boroom xam-xam yi lislaam yi yitte woo lool yaru njaboot eh, nga xam loolu dafay leer ci seeni taalif seeni muallafaat di leer ci seeni téere yi ñu bind lépp lu ci ci lu aju ci wàllu yar ak la ca ak la mu làmboo yitte woo mbirum yar eh, boroom xam-xam yitte woo ko lool ak jullit ñi muy feeñ ci seeni tawaalif moo xam leeral wasaa'il yi ci mën a àggale wala samaraat muy muy meññet yi ci juddoo ci la imaam imaam al-Ghazali waxoon wax ju am solo wax ne as-sabiyyu amaanatun inda waliday wa qalbuhu at-taahiru jawharatun nafisatun saadijatun xaaliyatun an kulli naqshin wa suura wa huwa qaabilun li kulli ma nuqisha wa maa'ilun ila kulli ma yumaalu ilay bihi ilay fa in uwida al-xayr wa ullimahu nasha alayhi wa sa'ida fi dunya wal akhirati abawaahu wa kullu muallimin lahu muaddib daa wax ne gone amaana la mooy kuñ eh, ndénkaan la ci ay waajuram ab xolam lu set wicc la jawhar la maanaam gànjar la gu sell gu rafet waaye nangu na nag lépp luñ ca luñ ca rëdd rek nangu na ko dana ko jël lépp fu ñu ko wëlbati jëmale mën naa jëm foofa nangu na luñ ca rëdd nangu naa jàng jëm ci luñ ko jàngale jëme suñ ko tàmbalee nag lu baax ca waaye waxtu xamal ko ko ba mu gimmi ca dafay nekk nit ku sell su ko defee nag mu eh, eh, ñaari waajuram ak kaka doon jàngal yar ñëpp ñu texe àddina ak àllaaxira waaye safaan ba wa in uwida char wa uhmila ihmaal al bahaimi chaqiya wa halaka wa kaana fii raqabatil xaymi ali walwali walwali la su fekkee dañ ko tàmbal nag leneen dañ ko dañ ko doon jàngal fecc mbaa bëree mbaa caaxaan walla ñu neenal ko bàyyi ko rek noonu ba mel ni bàyyi ma mu texe di alku bàkkaar ba gàlle ca kaw loosu ay kilifaam neen yaram it noonu la mel yaram ci njëlbeen day nekk bindu bu matagut waaye mi ngi mate di dëgëre ci ci ak màggam waaye di di di yaaroo ci ab dundam bakkanit dafay euh, dafay mbindeef mu mu yées mu mu mu manki manki waaye nangu na nag ci lépp maa nangu mën naa wéy ci yées ko waaye mën naa man boo ko jé jàngalee jëm ci mat mën naa mat ëllëg mi ngi mat nag ci tërbiya ak tahdib euh, defar si defar jikko yi ak di ko dundal ci xam-xam imaam Xasaali ma wax loolu mu nekk wax ju am solo ju mat a bàyyi xel xam ne xale kon dafa nekk am am xàq ci ñaari waajuram ñu war a jox xàq joojee taxaw ca tem euh, ci la ci jiitu mooy maandu ci seen diggante maandu ci seen diggante ci ci na nga jëflanteek ñoom bañ leen a teqale bañ leen a ràññale muy ndaw la wala mag ma wala góor gi wala jigéen ji yamale leen képp ci xeeti bir na ngay jëfe njëkk ñoom ak la ngay dépensé ñoom nga nga nga yemal leen ci ndax teqale leen ci jëflante ci sa diggante ak njaboot dafay jur fiiraange ci seen diggante dafay jur ak mbañeel dafay jur ki ñaan seen seen biir itam te gis nañ yonent Yuusufa alayhi salaam li taxoon doomi bàyyi mi doon ko sàkkal pexe mooy feesal gu seen waajur feesal maanaam nu nga ko bëggee teg ko fu mu leen tegut eh, loolu tax ñu iñaane ko ba tax ñu bëggoon ko sàkkal pexe loolu ba tey nag saabu ak teqaleem seen njaboot loolu ba tey loolu lay juraat su fekkee day nag ci na ngay leen na koy ëmbalee yërmandeeg ñeewant su boobaa nag ca ca ca la ay wa gën a bare war a sàmm seeni xel ñoom xale sàmm seeni xel sàmm seeni yaram defe seeni jikko di di leen dundal rafetal seenub yar di yittewoo seenub njàng seen seen saqaafa deen jëmale ci lépp loo xam ne seen yiwu adnawu alaxi da ca nekk solo nañ jële ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne akrimu awlaadakum wa ahsinu aadaabahum fa inna awlaadakum hadiyatun ilaykum na ngeen tere seen njaboot te rafete seen i ndax seen njaboot kat ci yéen waaw Ibnu Maaja ma ko solo solo na ba tey jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne saawu bayna awlaadikum fil atiya falaw kuntum faddalan ahadan la faddaltu nisa na ngeen yamale seeni doom ca nangeen ngeen di jëflante ak ñoom ak la ngeen leen di jox daan su ma su ma doon gënal day sama doom jigéen lay gënal waaye nag yàlla santaane maandu ak yamale ci lañ gis kon li ëpp li gën a ci wari gari waajur yàlla wala sariyaxa farataal ci ñoom mooy sonn ci seen doom yar leen yar bu rafet ngir ñu ma a génn ci dund gi nekk ay ay ay ay ay liggéeykat yuy liggéeyal seen bopp liggéeyal seen réew liggéeyal seen diine liggéeyal seen bopp su fekkente ne bàyya nag waajur ya wala kilifa ya neenal nañ loola subaa toggoon nañ tooñaange gu mag tooñ ko seen bopp tooñ ko xeet yépp ndax doom ja defaru ëllëg njariñal waajuram lee doon kon xañ nga njariñ lool sa bopp su su su defaroo ëllëg njariñal xeet wi lay doon kon ba nga ko xañee xañ tooñ nga ko moom tooñ xeet wi jël ci Abdullah ibn Umar wax ne bi sallallahu alayhi wa wax na ne eh, waxoon naa ko léegi eh, benn xadis bi la rek mooy góor gu nekk ab sàmm la ci njabootam dañ ko laaj lam nu ko sàmmee jigéen ji noonu imaam eh, ba noonu kenn ku mu ko daal am nga am nga lu ne ci sa kanam eh, loolu sàmm nga ci ëllëg def na lu ko laaj su ko defee doom kon war a war a war xale kon war a war a war a jéem a tàmm ay teggin déggoon seen Sidi Muxtaar yàlla na ko fi yàlla loolu yàggal te wéral ko wax ne ko def yaree di ko doo yore dara ko def ñàkki teggin doo teggi dara kon ñu xam ne kon ab yar mooy koom mi gën a màgg ci ndaw noonu nga xam ne warugar la xàq ju yàlla gàll ci waaju seen doom noonu la amee itam xàq yàlla gàll ci doom ñu amel ko seeni waajur seeni baay ak seen yaay du caagi ne saw bés seenu am ñëw fii ci àdduna rek ca la waaye du moom rek du caagi ne it lañ leen doon defal di leen dundal ak a war lañ defal ci njëkk rekk waa ba ba ba mu niru fayonte niru mukaafa waaye day ko teg ci kaw ni rek yàllaa ko waral ci ñoom yàllaa waral topp leen jëfe leen njëkk rafetal jëme ci ñoom ba mu lëkkale sax xàqi waajur moom yàlla ci xàqi boppam gannaaw bi mu leeral xàqi jaamu ko moom dong ak wéetal ko di ca sasale xàqi waajur wa xadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bil walidayni ihsaana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma waxul lahuma xawlan karima waxfid lahuma janaxa dulli min arrahma waxul rabbi rahamhuma kama kama rabbayani saghira sa borom dafa dogal ci nga bañ a jaamu kenn ku may moom waaye nga rafetal yi nag jëm ci sa ñaari waajur rawatina su fekkente ne kenn ñoom dajaa àgg ci mag wala ñoom ñaar ñëpp ñu di mag foofa la gën a yaaya fa la gën a ware fa la gën a jaadoo nga taxaw temm ci seen mbir féete leen fépp di seen doon seen tànk doon seen loxo doon seen lami doon seen lépp taxaw leen ci wet féete leen ci wet yëpp te luñ loo ca yàgg-yàgg loo ca son-son nag bu mu tax nag nga dem ba toqi ba génn genn kàddu guy tegtal ni toqi nga mbaa mbaa son nga ci lu muy baatub uf la wax mbaa lu ko niru wala mbas mbaa yu mbaa yu ni mel bu ko gëdd mukkit waaye deen wax wax ju nooy wax ju sedd wax ju teggiinu wax ju rafet tey wàcc saboo ci seen kanam di toroxlu di leen màggal di leen jox cër di leen wormaal di leen toppatoo ëmbal leen yërmande te koy ñaan sunu boom yi da wax ne sunu boom na nga leen yërëm niñ ma yar bi ma nekk xale sunu boom wax ne doomu aadama ñu ko dénk ci ñaari waajuram warta jëm ci ñoom mu ne rawatina yaay mi nga xam moo ci gën a sonn nga xam ne da ko ëmb coona ci coona feral ko ci dirum ñaari at moo tax man nag ma sant yàlla waaye nag man yàlla waaye nag sant sa ñaari waajur wa wasayna li insaani walidayhi xamalatu umu wahnan ala wahn wa fisaaluhu fi aamayn an ishkur li wala wali walidayka ilayya al masir kon warugaru doom ci baay ak yaay bokk na ci feeñal seenub cofe feeñal sak cofeel ci ñoom maanaam doom ji feeñal ak cofeel ci jum ëmbal ñaari waajuram ak war ma jum leen ëmbal ak di dummóoyu seeni ayib seeni sikk bu mu ko xool tey nangu seen njëkk ci moom ak seen gëneel ci moom ak seen teraanga ci moom ak seen fañ ko jaarli fépp mu mu mu mu mu saxal loola di ko di ko itiraaf waaye weg leen lool di leen teral di di leen màggal di wàcc seen kanam di leen jëfi njëkk ci lépp loo ne loxoom àgg na ca mbaa kàttanam àgg ci xeeti jëfi njëkk di leen dundal so suñ demee ba tali di leen waddu di leen faj di leen fegal lor day tey tey nangoo def fidaa u ci ñoom den leen sàkkul ak njëggal su fekkee gannaaw buñ dëddoo la di wéyal seeni kóllëre guñ am ëmbul amoon nit nga di ko wéyal di taral seeni xarit di jokk seenu bokk am na benn waay bokk ci ansaar ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah ndax dese naa benn jëfi njëkk ba xam amee na ko sama ñaari waajur gannaaw bu ñu faatoo mu ne ko naam alsalaatu alayhima wal istigfaaru lahuma wa infaasu hadima wa ikraamu sadiqihima wa silat rahmi la rahmalaka ila ila min xiblahima ba xadis ba jeex de xadis ba xaw gudd mu ne ko daal eh, axakay des na loo leen ameel ci jëfi njekk mooy nga di leen ñaanal foo toll te ñaan ga doo ko jagleel rek bis yooyu tànn deen ci ñaanal waaye saa bu sa xel demee ci moom danga a jàng rawatina gannaaw julli goo sëlmi gu nekk di leen sàkkul ak njëggal ci yàlla tey wéyal itam seeni kóllëre yu ñu amante ak nit lépp lu ñu jëfante woon ne nga wéyal nga wéyal jëfante googee di taral seeni xarit gépp jokk bokk wax ne ci ñoom la daa jokkoo nga nga nga wéyal di ko jokk euh, daal ne ko lii de mooy li nga dese euh, ci loolu mën a jëf njëkk gannaaw bu ñu faatoo kon lislaam def jëf ci ñaari waajur mu nekk jihaad da ko boole ci jihaar benn waxambaane dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko tàggu ci jihaar juñ doon waajal mu ne ko a ah, xayyun waalidaak na am xaala fa fiihima fa jaahid dama bëgg a dem ci jihaar ji mu ne ko ndax sa ñaari waajur ñu ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko demal nga jihaad ci ñoom kon nga taxawu leen féete leen fa la war féete kon dafay tàbbi ci uh, ateb jihaad ak jihaad darajaam toll ci lislaam mu tere itam ñaawal jëme ci ñoom ñaar ba def moy leen ñàkk leen topp mu boole ko ci bàkkaar yi gën a rëy nee naa la gannaaw wéetal yàlla topp waajur la ci sunu boom sasale waaye yun saa suñu itam ci xadis bi mu tuddee bàkk bàkkaale nga xam ne moo moo ci bàkkaar yi ba tey moy waajur la ci sasale ala unabbiukum bi akbar bi akbar kabair xaaloo balaa yaa rasulullah xaala al ishraaku billahi wa uquuqul ndax duma leen xibaar bàkkaar yi gën a rëy ñu ne ko ah kay mu ne mooy bokkaale yàlla ak mooy sa ñaari waajur nga xam ne ku bokkaale bi gën a rëy bu jàllee la gën a rëy ci bàkkaar mooy mooy sa ñaari waajur ni nga xamee ne topp yàlla bu jàllee topp waajur moo ci gën moo moo ci topp moo ci gën a màgg ne boo fekk dafa sonn bu jóg toog teg na ala wa xawlu zuur wa shahadatu zuur wa xawlu zuur wa shahadatu zuur fama saal yaquluha xata qaala abou bakar sakat neen dafa dama ne ak wax aw wax wax lu amut ak seere lu amut maanaam wax aw fen ak seere aw fen di ko baam di ko baam ba mujj Abubakar ne ma ak a neexoon mu noppi kon dafay wone rek kon eh, waajur ak doom ku ci nekk danga am xàq yoo amee sa moroom te war koo sàmm kii warugar yar la am ak toppatoo ak defar kee war a topp ak toppatoo ak taxawu eh, bu ko nekk defee warugaram rek eh, lépp tege ci yoon ñu ngi jéglu wax yàlla sunu moom boole dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.